salaamaaleykum wa la patriote cher patriote maa ngi leen di nuyu bu baax di leen ziare opposant bees bi léeg-léeg damay dégg ñu naan ana rupture bi te daanaka ñenn ci journaliste yi ñoo jiite opposant bees bi mooy waa ëllu toog muy dox rek daanaka ñooy opposé wu fi mu ne ci benn rupture laay ñëw ak yéen tey mooy Alpha Ba Alpha Ba ñu def ko secrétaire d'État toftal ko ci ministre bi yor wàllu agriculture dénk lu jëm ci eh, wàllum baykat yi surtout ci wàllum jiw yi ak engrais bi foofu rupture bu la waa toog muy dox poste boobu bokk na ci li leen gën a metti waaye da ngeen gën a dee parce que bu njëkkoon euh, ñenn ci homme d'affaires yi ak tappalekat yi waa toog muy dox yi nga xam ne amuñu benn liggéey dañuy dem di jëli ay quota jiw ay ay ay quota engrais tamit te xamuñu tool xamuñu nu trancé di jëm dan daan jël ay quota Lolo non président Ousmane Sonko néna na dak na dak motax mu jël Alpha Ba def ko secrétaire d'état toftal ko di lolo, ji yor walu mbay mi pour mu saytu loolu directement pour mu saytu loolu Alpha Ba fas yéene fas yéene la fi daan am dak manam amatul wala ab njublang naan ngay am ay quota ci gi wala nga am ay quota ci ñebbe ji wala ngay am quota ci engrais bi loolu man nga sa du am laaj naa ko biig ne ko alpha mu ne ma ma ne ko dama jot ay message yoo xam ne nii biñ gañee ba pare baykat yi dañ ne ma suñ mënoon a fexe ba mu ba jiw yi ak engrais bi di àgg ci baykat bi directement loolu dana leen neex moo tax yow bu la falee secrétaire d'état dénk la lu jëm ci wàllu mbay mi pour jiw yi du àgg ñu xam ne ñoom lan doon ñaan am na mu ne ma danañu fexe de ba li ñuy joxe danañ fexe ba mu àgg ci baykat bi ku nu jox danañu ko xam danañ bind turam danañ xam fa mu dëkk xami toolam waaye du sàmba sugum ngay bu ñëw ñu jox law jiw surtout waa ëllu toog muy dox loolu xanaa xamu alphabet yi bokk na ci li gën a metti waa toog muy dox am na ci kër yoo xam ne dañ doon bind aw jiwu te kenn du fa bay baaba day bind bind ñeenti jabaram bind doom yëpp am na ci kër gi xam ne mbindaan may fu sax day bindu am deux cent cinquante mille ñu jox ko cent mille daal di lekk cent cinquante mille barke alxuraanu karim sëñ bi li nekkoon ci dëkk bi ci ak njublan ak bon surtout ci wàllu mbay mi kenn xam ko moo tax alpha ba nee na ma de jiw bu soobee yàlla ak engrais bi danañ fexe ba benn lobby wala benn toog muy dox wala benn saay-saay boo xam ne da ngaa amoon yaakaar ne ci lii ci la say mbir di doxe mën ngaa sa wita tër yi wala nga wuti tool boo ci bëggee am na nga wuti tool moom waaw dem bay